fateleku suñu gorga suñu góor ne lii la ci namm ñetti F yi ne ñett F la langue la langue française française hein? uh-huh. le franc Le franc français français force force française française uh-huh. setal ne seetal benn dërëmu France benn dërëmu France di téeméeri dërëm di téeméeri dërëm ak fanwer ak fanwer ben euro ben euro 650 650 lii lan la si ne lii ñal lan la te or ba ko garanté. te or ba ko garanté. Afrique lañ ko jëlee Afrique lañ ko jëlee. dërëmu France dërëmu France dërëmu France. don fi don fi téeméer téeméer ak fanwer ak fanweer lii mooy lan léegi lii mooy lan. kañ la suñu économique. kañ la kañ la suñu économique. di avancer di avancer tant que amuñu. tant que amuñu suñu xaalis si bopp suñu xaalis si bopp. duñu réussir duñu réussir. ñom bo jëlee lu tuuti né ñom bo jëlee lu tuuti muy lu bëri fi muy lu bëri fii ñun bo jëlee lu bëri. bo jëlee lu bëri yobbu fofu yóbbu foofu muy lu tuuti fu ñu jëm fu jëm

foo jaar foo jaar da nga xam da nga xam am na or am na or wala pétrole wala pétrole wala gaz wala gaz wala uranium wala uranium buñ ko xamee rek buñ ko xamee rek ñu créer la ñu créer la Mali mi ngi nii Mali mu ngi nii fa lañ doon jaar fa lañ doon jaar Tombouctou Tombouctou am na problème am na problème ki daal ki daal am na problème am na problème gaaw am na problème am na problème pétrole bi pétrole bi ba ma koy wax ba ma koy wax passé na ñaar fukki at passé na ñaar fukki at man maa dem ba gis place ne moom moo dem ba gis place bi jàng bi ma jàng la jàng bi mu jàng la

sa kaaraange ne sa kaaraange bu ko jambour yoré bu ko jambour yoré yaa ngi ci insécurité yaa ngi ci insécurité bés bu mu la soppatul bés bu mu la soppatul mu falang la mu falang la guerre ci Afrique yépp guerre ci Afrique yépp tubaab yi la tubaab la ñetteel bi ne ñettel bi moy la langue moy la langue française française tey jii tey jii bu ma demoon bu demoon woote woote ba gagné ba gagné 92 92 du ma nek président du nek président da dañu ne du du bindu tubaab dañu ne du bindu tubaab euh, du làkk tubaab du làkk tubaab número 2.